sa ma war a soññ man soññ war a soññ seen bopp soññ ko si jataay bi soññante ci sunu biir muy góor ñi muy jigéen ñi ni góor ñi jële kàddu na ko jigéen ñi jële kàddu bu bu ngeen demee fee ci ëtt ba luñ ma war a wax man ci saaw doxin nan ma ko wax luñ ma war a soññ nañ ma ko soññ keneen ku man di doon it noonu ñun ñëpp nañ maasa seetaat sunu doxin bu wér bu wóor dëggu te dëggal te sellal te jëmm yàlla tax xam li nu boole lu mu doon xam jaayante it mooy lan nan xam jaayante mooy lan danoo joxe sunu bopp yàlla jox sunu alal yalla te ay liggéey yu wér nekk fi sunu kanam ci fànn yëpp tàmbalee ko ci wéetal yàlla tàmbalee ko ci jikko ju rafet tàmbalee ko ci nangoo liggéey tàmbalee ko ci nangoo jaamu yàlla waaye loolu dafa am lu koy jëmbat am fu muy tege ñun ñëpp nañ ca maasawaat soññaat suñu bopp bu wér bu wóor muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kenn ku ci nekk nun noo tànn noo jox yàlla suñu bopp am déet noo ko waxal suñu bopp ku nu woo mat kenn ku ci nekk yaa ko tànnal sa bopp nan ko dëggal ay wax doyut ay wax doyut ku mën a dox ci loolu nu ànd dox ci koo xamante ni mu mënu coo dox nga dem tooge kooku kat mooy dëgg nit pomme de bu yàqu ci biir saako pomme de yàq pomme de terre ba lépp ñi nga xamante ni amuñu yàqin ñu ci bari doo eh, wo falal kenn yitteem wala pas-pasam fu mu mën a féete nag ci kaw suuf xatta bu doodut ab jullit waaye ku ci ne lam nekk am na lum ko jaral jaral goo xamante bu mu geesoo gis ko boo xoolee it gis ko rawatina nag koo xam ne fu ñu tuddee yàlla nga yëg ko ci soxol di ko dund lala may loolee war nga koo xam war nga ko jàpp war nga ko fonk te war nga koo téye te war na laa jaral sa bakkan war na laa jaral sa alal bu dee li ngay wax dëgg la ci yow comme du dëgg ci yow nag nga xoolaat sa bopp wax ji moom bañ ko dalee wax yàgg na ba àgg ci lool muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw buñ joxee sunu bopp joxe sunu alal loolu dañ ko buñ ko waxee dañ ko war a jëmmal war koo firndeel ngir jëmmi yàlla ñun ñëpp nañu yokkaat suñu yitte nañu yokkaat suñu góor-góor nañu yokkaat suñu pas-pas muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw tàmbalee ko na ci saa bopp man ñëw ci yéen ak fu fi waay man di féete nanu gën a góor-góorluwaat gën a takkaat sunu laxasaay ci liggéeyal Serigne Touba Xadimal Moustapha ci toolub lislaam bi te fas yéene doon kuutaayam ci toolub lislaam bi ci lépp lu koy jëmmal. am na loolu sëñ bi ay caaxaan jëmmalu ko fa jëmmalu ko jaayante gu dëgg moo koy jëmmal yéen ñëpp te ngeen seen bët ci yëngu yi ñuy def yëpp ak wedd yi ñuy yëngoo yëpp ba démb ci mujj fa ngeen daje di fa def loole ku ne xam na ne la koy jëmmal du toog du xoole du loo am jënd ko connexion du loo am ne ci sa yitte wala ne ci sa bopp du jëmmal loola du taxawal loola te ña ña góor góorgóorlu ak a def seen yitte dafa am lu ñu bàyyi gënal loola kon bul taxaw fële di xoole naan gaay danañ ko jëmmal ak daañu ko def déedéet te lii weesoogu ni ma koy wax waxtu ne du tàmbalib liggéey bi ma wax leen ko lii ma leen wax nekkut gannaaw kanam la ne lii ma leen di wax niwut gannaaw kanam la ne du tàmbalib liggéey bi li may wax waxtu wu ne jëf ji yomb na gis nga xale bu ndaw bii bu amoon yitte am pas-pas dana dem ba boo ko joxoon lu muy jënd ci tàngal sax ca bitig ba mu jaayante ko ne ko naa ko naa ko def ca liggéey bu xuma la ak magum jëm loolu nañ ko bàyyi xel di fàttaliku daara ji ñi ko sanc nañ ko sanc woon yéen ñëpp yéen a ngi fi di leen ko fàttalante nit daana am ñeen fukki dërëm nekk université yéen ñii alaaji góor a yéen ñii nga xam ne Cheikh Baara ba mais yéen ñii ñëpp yéen a ngi fi woon nekkoon université ba ci seen jagaak ñu maa ngi leen di gis yéen ñëpp yaa ngi dégg li ma lay wax ñeen fukki dërëm ku ko ci nit masaa am doo ko lekk ko lekk danga naan dama koy passé dem kër Mbaye Fall mbaa mu jaral la dox dem fa nga dem ba léegi yor say wata ñu jël la ngay liggéey nga am lu ne toog fa nga toog loolu fu mu tege nañ xoolaat suñu bopp nag nañ xoolaat suñu bopp am na ci loolu kat ak waye di la du dara lu may ak waye di nañ xoolaat suñu bopp bu baax kenn ku ci nekk nag xam na boppam ni ma xamee sa bopp xam gu wér gannaaw yàlla kenn ku ci nekk xam nga sa bopp gannaaw yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa lii ma wax nag lu ñu ma war a soññ bu leen mu ko yërëm leneen kuñ ci war a soññaat bi leen ko yërëm waxante ne ñun bu ñuy ànd dañuy waxante dëgg lu boole